Sédouane ko Bakel du côté de la régie Tangon l'ol euh, tàngoon na Arfan euh, Barthélémy Diaz il a été euh, euh mu Tangon di entre justement les militants de peut-être d'Ousmane Sonko et ceux de Barthélémy Diaz Arfan bonne image wala kon bonne l'image image bi renvoie exactement le fait que Barth je ne bëgg pas tuddalati li nga que moo justement justement tout peut-être Ousmane Sonko dem sax bay proféré li nga xam nekk moo di ay insultes dans sens. ouais mais euh, la liberté d'expression expression bu ñu doon wax Barthélemy Diaz la bañal ñooñu Barthélemy Diaz moomul seen jëmmet bay wax leen kan la wara tuddu seen jëm voilà xam nga xam nga nit fay taxaw di naan non liberté d'expression lañu la bu gan wala kenen ak kenen ba paré yo Barthélemy Diaz yow yaa doxantu ci mbedd yi tamba yi bëggoo ku lay tuddu Sonko c'est comme si yo y'a mom jëmminam c'est comme si Koku yow yaa koy orienté lu mu Nyom en en réalité nyom nyom nyom nyom. nous un débat contradictoire Nyom ñi doon jiiñ le régime en place ni bëgguñu un débat contradictoire ñoom ci seen jëmm bopp bëgguñu un débat contradictoire parce que vous bu que Barthélémy Diaz tu as opté pour faire la politique tu es dans une chaîne politique dans ngay Nango, un sénégalais lambda buy taxaw dinaa ñun Sonko la ñu c'est ça la réalité. Nous Sonko la ñuy wax mais ça ne dérange rien du tout. mais attends mais non, mais Il n'y a pas un mais mais est-ce que la situation mais est-ce que la situation est appropriée mais non avant est-ce que la situation est appropriée pour Est-ce qu'elle est exactement le nom d'Ousmane Sonko en présence de l'église de Dakar après de la jàpp yow est-ce que la situation est aussi appropriée pour que Bougan dem Bakel là dans une zone militarisée Bukan dafa dem doon yóbbu ay ndimbal. yóbbuwul ya benn ndimbal. Arfan ni ya Bouga dafa dem doon yóbbu ay. ndimbal ya ñu yóbbuwoon ndimbal. yóbbuwoon na ñun ndimbal si ginnaaw président bala muy dugg Bakel. amaana sax am batay dembe dembe dëmb dëmb sax am ñu def ces gestes là Serigne Mboup Serigne Mboup yóbbu na ndimbal euh, Bakel kii Bakel pourquoi presse bi ñu bëri xamuñu ko Serigne le maire de Kaolack yóbbuwoon na ndimbal a Bakel. il n'a pas besoin de mettre les caméras là-dessus les micros pour dire que man yobou nan dimbal ñeneen ak ñeneen yóbbu nañu dimbal sans se faire voir comme bougan lu mu ko da bëgg xam nga Bougane moom bu ndimbal à Bakel Lolo yalla accepte wu ko nga yobou ndimbal ba caméra filmé na maanaam maa ngi nii di à Bakel Yalla bëggul boobu ndimbal mais l'État aussi a médiatisé son nimble. xamal l'État xamal l'État l'État c'est normal parce que état moom mooy jëf sénégalais yi gis bu defulee loolu bu defulee loolu sénégalais bii nekk kiri koro boo xamante ne duy seetaan euh, euh, duy seetaan 5 TV wala beneen du xam ni que état mu ngi taxaw waa Bakel jamono bii nii. moo tax état moom si boppam moom moo war def loolu visibilité bi pour sénégalais yi gis ni que ñoom ñu taxaw présentement waa Bakel pour ku am njiixi jaaxa xelam ñu dalal xelam mais Bougane il n'a pas besoin de le de le faire parce que il n'incarne pas l'État. Hmm. oui il n'incarne pas l'État il est un citoyen lambda bu bëgg a yóbbu ay ndimbal ci waa Bakel donc il n'a pas besoin de de de de mettre les caméras, ou d'aller dans un bras de fer avec la gendarmerie pour ça. Hmm. donc vous vous avez li ngay wootee dëgg la ci yow da ngay président Bakel ngeen yóbbu seen gàngoor gi yóbbu ko Bakel loolu lu c'est c'est aussi c'est légal dans ne Diaz ñu non un débat contradictoire alors que nous un débat contradictoire Diaz nay les feulé Tambacounda di se soutien à Bougane un sénégalais lambda taxaw di Sonko lañu ñun Sonko les ko Sonko man euh, c'est quoi ça c'est quoi sénégalais Bobo. moom tamit liberté d'expression il a le droit de dire que Sonko la ñu mais comme keneen mu droit Barthélemy Diaz la ñu mais tempérament moo toll foofu. tempérament il n'a pas le droit parce que kooku fekk ko à la mairie de Dakar mu yuuxu ko turu Sonko même bu ko que c'est à la mairie de Dakar la mairie n'appartient pas à Barthélemy Diaz c'est pour tous les Sénégalais et les Dakarois asatuma yow dans la rue Barthélemy Diaz était en pleine rue. En sénégalais bi ne ko Sonko la ñu gëm mu ne ko ku fi tudd son c'est comme si il est chez lui là c'est comme si Barthélémy Diaz il est chez lui ki tudd tour Sonko il l'a trouvé chez lui pour lui dire que Sonko xam nga bu la fekkee ci sa périmètre chez toi ñu tudd la Sonko tu as droit plein droit de dire à cette personne là jógee fii nga dem tudd Sonko fële parce que fii sama kër la mais en pleine rue

il était en pleine rue le passant dafa donne passé Yal monaco Sonko Sonko le migum, mais Barthélémy Diaz n'a pas le droit de réagir de cette façon. mais le risque n'est que provocation. mais est-ce que. Ah bah, non non non peut-être Barthélémy Diaz a pu seulement répondre. à la convocation. à la provocation. Mané, mané, même bu faites provocation. Ah. tu es en pleine rue. on est du y'a démocratie on est dans une démocratie le passant qui passait, il a le droit de scanner le nom qu'il veut dans la politique sénégalaise. Fallo. Arrêtez, c'est Biden Sentiahani. Le passant, c'est un citoyen sénégalais. Il a le droit, ce qu'on est, il a Ablaye Wad, Ablaye Wad. Moi, moi, su mon Khalifa Sal, Khalifa Sal, en passant moom moo xam est, ko neexee mën bougan, bougan. Bougane mais Ousmane Sonko convoi mais dañ leen di parce que c'est une conviction c'est le charme de la démocratie c'est le charme de la démocratie merci beaucoup pour le mot là c'est le charme de la démocratie. le ça non Barthélemy warul Qu'il faut warul saga tu peux pas taxer les autres d'incompétence alors que toi aussi tu es incompétent un incompétent n'insulte pas en public idéom la yor di ko Dis-moi Barthélemy Diaz il avait l'occasion pour wane que ni que il est démocrate et aussi il est compétent gis nga koko ba muy wax Sonko daf ko war tatchu tàccu mu ne ko wa merci merci merci ñun tamit ñun suñu conviction la mais jarul mu koy saga pourquoi l'insulter un maire de Dakar qui insulte dans les rues de de de de Tambacounda quand même c'est pas beau à voir les personnes censées à montrer le bon exemple ils ne le font pas nous même ni Barthélémy Dias nous ñoo montrer le bon exemple aux jeunes sénégalais le jeune là c'est un jeune xamul. Je ne sais pas si tu as vu les images. Un jeune qui passait, il dit Oui, nous sommes C'est quoi ça d'accord il n'a pas de poste de responsabilité au sein de cette coalition-là, voilà au sein de la mairie de Dakar. mon suis d'accord saga, man Assam Diouf sax bu saga, ça ko comprendre parce que Assam Diouf ci nit ñi ci ay saaga lañ oui un activiste mu doon saaga Macky Sall depuis les États-Unis il ñu aura ko ma ne Assane Diouf bu bokk gëm sa bopp bu saagaayee ça le gars là le passant qui donne scandale au nom de Sonko hmm. man j'aurais compris parce que Assane Diouf ñun ñu ci loolu lañ ko xamee mais c'est pas Barthélémy Diaz qui est un maire de Dakar l'actuel maire de Dakar qui insulte publiquement dans les rues de Tambacounda yéen ngeen bëgg a daganal loolu où sont les messieurs Amnesty International Amnesty Amnesty International où, où sont les messieurs organisations internationales Pourquoi Wahounou Barthélémy Diaz, il n'avait pas le droit d'insulter un citoyen sénégalais Bouane, gum petit politique. Parce que Boudemé son Sonko. Oui autrement. Pourquoi les Sidi Gassama et autres, ils ne recadrent pas Barthélémy Diaz Non. Mais quand ils ne définissent pas, c'est pas la liberté d'expression. C'est un hein, communiqué. Mais pourquoi Pour faire que son le monde nous gagnons ce communiqué. pourquoi ñoom Barthélemy Dias saagaan kii ci ndey saaga ndey kii et que ñoom waxuñu ci dara booba léegi. dafa saaga ndey. oui pourquoi waxuñu ko ah ñoom ñemewuñu Barthélemy Dias en fait ñoom Sonko la ñuy ñeme parce que Sonko gla glace la. Sonko glace la day jënd glace. du porter kenn plainte du wax kenn du faale kenn day ignorer ñëpp donc moo tax ñoom Sonko la ñuy ñeme. mais Barthélémy Diaz bu saagayee publiquement les journaux là tey est-ce que dégg na revue de presse ñu ñuy largement ci saaga ndey Barthélémy Diaz déedéet ay quelques journaux ñoo brossé rek jall mais tey bu nekkoon Ousmane Sonko mo saaga ndey tey tey mu non non bokul Arfan bokkul. laa ilaaha illa bokul bokul bokkul. bu nekkoon Ousmane Sonko mo saaga ndey tey ni tey ñu ray ko Ousmane tey nga dé dañu lay caricaturer dañu lay yóbbu yóbbu boulet aller retour jaxase la andi la journée bi les yo la ñuy Ousmane Sonko Sagandey, ndey Ousmane Sonko def na mais heureusement de Ousmane Sonko mo saaga ndey et Barthélémy Diaz moussa gander et tout le monde est resté à fond c'est comme si dagan na. injure publique. tu sais que le gars là le gars bu Moussa non non, noonu mën plainte pour injure publique. contre Barthélemy Dias non dafa am lu koy protéger il a son il a son il a son en flagrant délit nga may nga may naan dafa am lu ko protéger yow da nga não droit yow pourtant ñuy pourquoi ñuy atte Bougane en flagrant délit mais si parce que les faits non non non Fallou yow da nga lay déglu là Bougane amul benn poste de léegi Barthélemy Dias li vidéo son la ba muy saaga en public ne dama am na lu ko protéger malaamu kiiraay dafa am fu muy egg dafay daanu nee la buñ la jàppee loxo ci poos

la suite à euh, suite à une provocation. dama ne ci la suite à une provocation. ci dëkk yoon la injure public, suite à une provocation injure public point. waaw suite y' a pas de provocation parce que Barthélémy Dias fu mu nous c'est pas un lieu classé c'est pas un lieu privé il était dans un espace public wadi de di romb moom tamit mu wax gëm-gëmam politique Barthélémy Dias saaga quoi pas une provocation loolu une provocation xam nga mooy provocation est-ce que Fallou. Hmm. ñu fekk Barthélemy Diaz au sein de sa mairie. waa jii ñëw ci buntu bi taxaw ne ko Sonko la ñuy gëm loolu provocation la mais ci mbedd yi Tambacounda Barthélemy di dox waa ji di dox ñoom ñëpp di dox. waa ji sa waa ji sa xoolul Barthélemy Diaz ba muy ne Sonko la ñuy gëm. Eh, non xoolu ko <laughs> waa ji da doon romb di naan Sonko Sonko la ñuy gëm mais Barthélemy Diaz il n'a pas le droit de l'insulter

dimanche bu wàcc ci mbedd bi bu wàccee ci mbedd bi lu pire que waajooju noonu lay dëgg kon bu fekkee bëggul ku koy tudd turu Sonko na dem toog ci bureau mairie de Dakar kenn du ko fekk ci biir bureau bi di ko ne Sonko <laughs> mais tant que mu ngi ci mbedd politique bi gars yi foofu lañ koy fekk di ko sonkoriser. alors c'est clair mi ngi naan moo nekkoon président de la république fépp fu mu jaar ñu sonkoriser ko amaana ma un simple maire de Dakar mais ngay ngay ngay président de la République simple maire de Dakar tu intervenir de manière efficace. un simple maire de Dakar la. Macky Sall bi président de la République sa son mu jaar ñu ne no bat ak Macky Sall magasin Macky stade j'étais mm. sur le stade. Mm. à l'intérieur. Mm. Macky Sall muy discours à lan lañ libérez Sonko bi stade Ablaye nu mu toll soixante mille place alors xam nga cinquante mille places. stade bi di riir libérez Sonko libérez so di ko sonkoriser Macky Sall. c'est clair c'est clair te dara. c'est clair mi ngi noonu. dégg naa Ibrahima nga ne ma benn Barthélémy Dias qui est un simple maire de Dakar. qui va à Tambacounda, il ne veut pas être son corrigé. Donc tu n'as qu'à rester chez toi. Ah, Comme il l'a dit. Tu ah, il qu'à rester chez lui. Mais, c'est le maire de Dakar. Alors, Dena bal de Bart Non, Dina ça. C'est euh, campagne. Dina c'est campagne. Parce que mm-hmm. campagne. C'est que. Il y a un dossier. Il y a un dossier. Il a un dossier. Bien sûr. dama ni bien sûr xam nga Fallou li nga war a comprendre dans une chaîne de campagne politique campagne bi boo xasee ba commencé yeneen dossiers yi yeneen dossiers yi kenn bañu fi dossier ak yeneen opposants oui ok ñu nekkoon opposant bien sûr yàlla baax na alors ñu daal jàll itam si leneen ginnaaw loolu noonu exactement mbiru ki na